Pathé Mbodj euh, nuyu naa la. maa ngi lay nuyu soxna si. Euh, Pathé Mbodj nga nekk journaliste analyse politique déjà malay laaj ci euh, jàppante yu métti yi nga xam ne am na keroog ca siège bu APR Alliance pour la République xëccoo ci diggante militant yu Abdoulaye Diouf Sarr ak yu Amadou Ba pour candidat bu benn Bokk Yaakaar ci élection présidentielle ban jàngat nga si am. mooy ndox du teggi yoram. ndox du togg yanam mooy li ñuy gis si kër googu muy APR ndax Abdoulaye Diouf Sarr ak euh, Amadou Ba yëpp si APR la ñu bokk mënuñu wax ni coalition bi la mais li ñuy gis si kër googu mooy depuis 2012 saa yu tasee ay di buuru kër saa yu euh, dajee jéem waxtaan waxtaan bi si xuloo xeex lay mujjee. kon li am bërki démb mooy li am ci fukki at yi ñu génn fukki at ak benn yi ñu génn kon du lu du lu bees lu nopp daloo. pour yow daal loolu beesul ca ca APR miin nañ ko. oh, oh APR ga naa loolu moom seen mbaax la daal loolu seen mbaax la. fu ñu lay daal euh, bu ñu waxtaanee ba géex. daal xuloo euh, tas dem seen yoon. voilà léegi euh, tey jii yow si sa xalaat ba kan mooy meilleur profil parce que xëccoo am na euh, si diggante Abdoulaye Diouf Sarr Mahammed Boun Abdallah Dionne Mame Boye Diao Amadou Ba pour yow euh, déjà si si ñooñu rek kan moo si profil bu baax bi pour deux mille vingt quatre. xam nga kii baax ki mooy defe ak kii président war a ndax nee woon bu boobaa du meen du géño du parparloo du xarit. àndandoo bu boobaa li koy ñor mooy askan bi loolu mooy li mu njëkk wax te tamit illa dafa am na euh, su lu bare bare bare bare pour xam lu bare bare séntu lu sore hmm. ndax boo xoolee li mu taxawaloon li ñuy wax euh, plan Sénégal émergent naam moom yoonu askan bi la amul hmm, euh, yoonu yokkati la amoon waaye yoonu yokkute boobu bi mu ko taxawalee mu am ñu si jàpp def si xeex euh, ndóol bi si Sénégal mu am ñu si taxaw ñu ni ba administration parce que tamit bu ñu fàtte ni Sénégal dafa am ay fonctionnaire yu xarañ yuy xalaat jëmale suba seen xalaat boobu buñ ko boolee xalaatu président ñu jox ñu Sénégal émergent te programme Sénégal émergent boo wax dëgg nag xëy na gaa gouvernance kenn du ko lekk xëy na gaa autorité kenn du ko lekk li bu Diouf waxoon xëy na croissance kenn du ko lekk waaye ku gis xar Sénégal mhm. xam na ni eh, soppeeku na bu baax te li si kanam tamit normalement moo war a baax mhm. bu lépp pare ak bi ñu yàlla baaxee muy pétrole muy or muy diamant bon li ñu yàlla baax rek mun nañu si xalaat war na mun a dal bu loolu mun a bu amee bu nekk président ni man bu boobaa amul bokk amul xeet amul xarit euh, askan wi la te mun na sukkandiku si loo xam ne Moustapha Niass bi muy wax ne ko jàppale xamu ko dafa naa boobu bu bu si bu jàmm rek amee bu tànnee na tànn ko baax kon ki muy tànn ba sa si sama gis-gis si ñu toll nii mooy kii ku baax Euh, léegi euh, Boun Abdallah Dionne profil bi ñu bari dañuy wax ni euh, nekkul daal ku présidentiable te su demee deux mille vingt quatre du am lu bari bu dee Macky daf ko jiital lan nga xalaat ci profilu Boun Abdallah Dionne. xam nga dafa loo xam ne bu ñu weeru woon foofu Macky di nekk président bu ñu weeru woon foofu Jacques mhm. Chirac ca France du nekk président mhm. parce que bi jongante ko Amérique Barack Obama bi nekkoon Amérique ci boppam mbootaayam njabootam tànn ko woon pour mu nekk président dafa demal boppam xeexal boppam ba am li mu am dana jamono yoo xam ne ni bët mën na fattu li koy li li ñuy jig duñ mi ngi suñu kanam si mi ngi taxaw doon si ñun muy bul abdallah muy képp ku mu mënti doon bu ñu taxawee ci taxawaay boo xam ne nii parce que di fàttali ni bu Macky tamit askan wi mooy mooy voté bi ñu tànnee deux mille douze ku nekk wax na ku nekk kenn waxu woon Macky Macky génn kon euh, li si kanam ni euh, diw baax na wala diw baaxul lu ñuy xaar ba ñu tànn bu ñu tànnee Abdoulaye Wade baaxul na 2012 mais li mu forcé troisième mandat wax na ba nit ñi bàyyi ko kon nag xamuñu ko baax xamaguñu ko bon li ñu xam rek bu ñu bu ñu taxawalee ba ñëpp ngeen ñëpp teg seen euh, ndënd eh, askan wi ci boppam tànnal boppam askan wi def na am na xel bu bay boo xam ne war na ko mun a may mu xam kan moo baax ci moom est-ce que jàppante yu metti ak xëccoo bi am biir APR expliqué wul woon lu tax président makisal Sall buggul woon gaaw wax ci euh, troisième candidature mu nopp ba récemment mu door si wax est kon lii la doon ragal ni bu ko waxee euh, parti bi dina yëngatu te dootul liggéey comme ni mu ko doon waxee rek si ay déclaration mu nekk mu xam ko ñeneen xam ko commencé campagne la ñu leen deux mille vingt quatre Sénégal moom bu waxoo nag bu waxul yëpp commencé nañu campagne ndax depuis deux mille vingt ku nekk euh, samp nga sa njënd mu wax ko mu ko wax mu feeñ wala mu bañ a feeñ moo indi woon euh, affaire yi ñoom euh, Amadou Ba affaire yi ñoom Mimi affaire yi ñoom Alioune deux mille vingt dañ naan ñii ñëpp sama place la soxla kon xaaral ma dàq leen léegi président wax ne moom bokkul. ne woon xëy na bu ko teelee wax dañuy topp di euh, Sénégal lay mel ni ci lañ male bu ko teel woon wax tamit noonu lay mel wax na ko tey ci lañ male yi yokk ku ñu mën a daje ku ñu mën a teg dana am ñu ni waaw dana am ñu ni dee bu boobaa nag léegi ñu seet ñoom ñu ñuy Mm. Euh, Pathé Mbodj euh, est-ce que tamit euh, mën nañu xaar bis bu Macky waxee ni diw laa tànn pour Benno Bokk Yaakaar APR tas Benno aussi daal di tas. allié yu bëri dem voilà. loolu nga dana boo tànnee. si ñoo xam ne dañuy jongante. mu jaral li ñu gis démb. boo tànnee te tànnoo ñi nga xam ñoo doon xeex bu boobaa ñu doon xeex ñoom dem. nit ñi doon xeex antuwul kon amatuñ fi plan. bu ko tànnee euh, APR dana am ñu dem coalition bi dana am ñu dem xëy na bu boobaa mooy liggéey ndax APR APR dana xam su naka la toll ci askan wi. Mm-hmm. ñi koo topp dina xam ñoom tamit naka la ñu toll ci askan wi ah bu boobaa nag ñu xam ni bon lii mooy APR lii la toll ñu peese ko xam lu mu mën a am ak lu mu mën a ñàkk. Euh, recul bi président Sall def par rapport ak ci article 87 bi juróon coow ci dissolution assemblée nationale finalement mu reculer euh, ban jàngat nga ci am. xam nga loo xam ne ni jarul woon wax ndax euh, yoon daf ni assemblée bu mu nee daaneel nguur gi nguur gi tamit war na mun a daaneel assemblée bu ñu defee ay élection ba pare. bu amee ñaari at président mun na euh, tas assemblée kooku bu lu yoon la woon ba pare xëy na tey jii nga xamee ni euh, nguur gi euh, jamonoom neexul ndax xaw na sax assemblée mu doon fàttali rek ni loolu mun naa am mais dafa naa war jël woon fàttali mi ngi ci charte bi charte réew mi bu la yoon mayee nga xeex gouvernement gouvernement yoon may na ko mu xeex la bo surtout que bu fekkee ne kuje gi mu ngi xeex gouvernement xëy na ñoom si seen biir sax mun nañu tas ñenn ñi jàppale gouvernement ndax gis nañ ko bi euh, premier ministre Amadou Ba defee déclaration de politique générale euh, kuje gi dafa defoon euh, motion de censure pour daaneel nguur gi waaye dama ko defee tamit opposition si boppam moo tas am ñu ko jàppale nguur gi parce que fi mu nekk dañu xaw a doole ji. dafa xaw a méngoo si assemblée. kon wax ni article quatre vingt boobu mu ngi fi ba léegi jaru ko woon moo nga fa li fa li nekkoon moo nga fa euh, fi mu nekkoon moo nga fa li mu daan demee noonu la demee bu assemblée mu ne tas daaneel nguur gi nguur gi président en tout cas mun na daaneel assemblée. Mmh. Euh, dernière question Pathé Mbodj est-ce que jàpp nga ni modification wu code électoral bi dina jàll ci assemblée euh, pour xalifa ak Khalifa Sall mën a bokk ci élection présidentielle bu 2024 waaw ndax li ñu woo euh, kii assemblée bi looloo tax ñu woo leen ndax bu fekkee ni dañu nekkoon ci ay jafe jafe-jafe euh, ñetti yi ñu weesu ndax mbiru Adji Sarr ak Ousmane Sonko ak lu ci lalu ba ñu jàpp ni euh, ci plan politique bi euh, président warul bokk ba moom si boppam moo wax ne warul bokk ba xel ñu baree dal bon mu ne bu fekkee ne juboo bi am na daal dañuy tàmbali jubóo bi wax woote na waxtaan ñu toog wax wax nañu tànn nañu bu ñu tànnee am na lu ñu ci jàpp li ñu ci jàpp mu woo député yi ne leen ndax mun ngeen ma ko wotee député ni ko mun nañu ko wotee te boo xoolee nii PDS bu génnee eh, ci yeewu askan wi ah mun na jàppale nguur gi ni mu ko defee woon bi bi ñuy xeex Amadou Ba ñu yaakaar ni war na mun a jàll majorité bu baax sax moo ko mën a jàll. merci beaucoup Pathé Mbodj eh, ci tontu bi nga tontu suñuy laaj. voilà may fàttali ni taskatu xabaar nga analise politique nga merci Pathé Mbodj jërëjëf. merci merci Moreau merci.